waaw ci kaw ci kanam gis na li ngeen liggéey rafet na trop kontaan nañ ci yéen ci kaw ci kanam yàlla na leen yàlla defal jàmm da nga ne liiru day yóbbu xale ñuy daan c'est man ku ci yarul rek ma ànd ak yow ku ci yarul rek ma ànd ak yow man ñoom ñëpp su may rakk lan Gackou 2000 tey su ma rakk la sama jantal booy la booy bu yaru booy bu jox ma cër moo da lu ma ba jàppoon dama ko bàyyi ñëw indi ko yàlla suturaal na ma yàlla suturaal na ma may ma ndam alhamdulilahi rabil alamin des na yeneen xale yi mais dañu gis ni depuis combat yi bëri da indi xale yi. macha allah ñu gis ni da nga topp léegi ci ginnaaw xale yi di leen jàppale. samay rakk lanu ñoom ñëpp samay rakk lanu te dañ maa jox sama cër man maay monument Guédiawaye man maay monument Guédiawaye. Lirou Diane nee na déglu jële. waaw may la man maay monument Guédiawaye laa la wax waaw ñoom ñëpp sumay rakk lan waaw ñoom ñëpp sumay rakk lan waaw di ñaan yàlla defal ñu jàmm Guédiawaye yàlla defal ñu jàmm. ni ñu ko commencé ci bisimilah rahmaani rahiim ñu àggale ko ci alhamdulilah rabil aalamiina yàlla defal ñu jàmm yàlla defal ñu jàmm waaw. waaw promoteur laa bëgg sama combat moom lay wax ni promoteur laa bëgg sama waaw waaw noonu léegi maa ngi ñëw léegi c'est que dama talu woon xam nga man sama rakk suy bëre du ma am jàmm du ma tal du ma tal sama bopp. comme li woon ci combat Balla Gaye bi combat Balla Gaye bi. gis na ci combat bi waaw kooku suma rakk la. Balla suma rakk la c'est mon frère lii laa doon ñaan la yàlla yàlla suturaal nañu am na ndam. li ci des ñu nekk Guédiawaye ku am combat muy Lac de Guiers 2 yàlla ko yàlla may ndamul sedd gu. mais booy ñaaw wax ji dafa bëri. nee na bu jàppee Lac de Guiers daf waxin la rek waxin la làmb la rek làmb la rek. nee naa leen ce qui s'est arrêté à Boy Niang ak Guédiawaye Boy Niang sonal nañu. mais daan na leen. cinq fois six fois fii nag lay dëppee. fii lay dëppee fii lay dëppee. Lirou Diane moo wax loolu. waaw fii lay dëppee. fii la Boy Niang di dëppee. fii lay ndax daf ñoo sonal. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp képp mbër bu dëkk Guédiawaye nañu yéenante jàmm bokk ndey ak baay àdduna amu solo su jeexee rek jeex na. léegi Balla Gaye kan lay kan mooy kan lay bëre. waaye Balla Gaye daal mi ngi fi bàyyi fu kenn xale la mi ngi liggéey tubaarkàlla macha allah. mais sénégalais yi nee nañ Eumeu Sène Balla Gaye lañ bëgg. waaw dégg li ma fu kenn day liggéey ku ñëw bëre yow ku ñëwul nag mooy loolu ah. maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama doomu nday Dieye Sène at euh, Abdou Aziz Ndiaye borom Sador. borom Sador at Baye Ndiaye at Masata Aziz Ndiaye lu ne Sénégalais wax nañ ko. waaw mënut a ñàkk lam moo mel noonu xam naa dafa nekk produit wu géejawaay produit wu géejawaay la te ñun dañoo fonk fi ñu dëkk ñun ay doomu géejawaay la dañoo fonk fi ñu dëkk dañoo fonk si ñun couleur u géejawaay la ñuy défendre ñun couleur u géejawaay la ñuy défendre képp ku dëkk géejawaay ah ni gars yi ñu soo gisee Aziz li mu ne Aziz ba muy ànd ak euh, Balla Gaye du tey Aziz mbër la woon Aziz dafa làmb dafa nekk si deretam dafa bëgg bëre Baye Ndiaye ba muy ànd ak xale yu ndaw la ñuy ànd comprendre nga kër ñoom Balla Gaye ak kër ñoom ñoo dendoon ñuy ànd ba ñuy xale Aziz lu ko nit wax tooñ ko Aziz Ndiaye lu ko nit wax tooñ ko. da nga gis Papis nee na Aziz wane wu rek la mun. kan wax loolu kan wax loolu Papis bu Modou Lo. waaw waaw combat day wax lu ko neex rek oh, booy day wax lu ko neex ñoom lañu liggéey ñoom lañu def waxuñu ko. ñoom lanu liggéey lanu def waxuñu ko. temps bi du ma ne la mu def ci combat Balla Gaye bi ñoom waxuñu ko yàlla na yàlla defal jàmm Balla yàlla ko yàlla defal jàmm. jërëjëf ci kaw ci kanam Guédiawaye ci kaw ci kanam jërëjëf jërëjëf